toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Bon, tout d'abord, assalamu alaikum, maa ngi di di bon ma la dis artiste rappeur from Ñaari Tali Grand Dakar bon commencé rap en 2013 bon gagné premier album en 2019 après def deuxième album groupé ak sama label di di got 5 étoiles là ñu ngi nekk di présenter sama deuxième album personnel muy tànk kanam quoi tay le premier. bon particularité bi moy moy moy moy moy tànk kanam moy wax gaay que dans la vie nit da ngay gëm sa bop am objectif nga nga fixé aussi nga dox quoi. bon diggante 2019 ak 2022 ça fait 3 ans si 3 ans et c'est 3 ans de recherche 3 ans de travail xam nga de sacrifice pour mun atteindre son objectif quoi parce que lolu kasse moy moñu ñu ci affaire yi quoi moy dañu am objectif am ay am ay am ay affaire dans la tête il faut dañ koy dañ koy woné quoi c'est ça bon album bi aborder nañ ci ay thèmes yu melni ni héritage mooy son bi mo def ak Gaston bon dégg daaj pour wax ak jeunes que life bi da ngay da ngay da ngay dégg daaj wala sinon da ngay pëtëx bon def nañ ay son yu melni life aussi pour expliquer carrément nit nan la mën dundé ci life pour bañ am ay problème dans la vie et tout bon ak ay ay ay ay full thème quoi def nañ tamit bon wax ci soxor peut-être parce que c'est un phénomène bo xamantene nit yi dañ koy gis quoi et tout moy sama ma def ak Tarba Mbaye bon wax tamit particulièrement l'album est destiné à sama frère génie quoi pour wax leen dans la vie il faut nga yeewu quoi il faut nga taxaw il faut nga pare mentalement pour nga mun ci génn quoi c'est ça lol moy message bi baña a bañ a nit baña xaar nit baña teunk sa bop quoi c'est ça c'est ça le message. ah bon c'est un choix hein, c'est un choix parce que artiste bu da peut-être parce que d'habitude album les gars yi titres 15 titres selon tour bon j'essaie de faire des jeux de mots cool tout le temps quoi pour pour je suis dans mon monde et tout parce que premier album c'était 10 titres à na son autour du numéro 10 deuxième album bi titres bon xam nga toujours rester dans le dans le dans mon monde quoi pour wan gars que am naa sama particularité quelque chose qui me loo xam ne man la quoi mooy poul bi ak diis bi c'est ça quoi bon projet bi dafay wax si loolu sax mooy mooy liberté quoi musique liberté la quoi amul fenn fu ñu bind que rap da nga war a metti da nga war a sol tubéy bu ngand da nga war a xam nga loolu amul si àdduna quoi musique la dañuy def li nga xamante ne moom lañ sentir et puis aussi les loo gis si àdduna day am day dox quoi tanku kanam daf koy firmel quoi daf koy firndel moy moy même musique américain yi niñ ko commencé ak fiñ ñu ni c'est différent quoi parce qu'au début c'était 100% classique avec les DJ et tout après plus on avance ñu gis Dirty House. après moy ñom Lil Wayne affaire yooyu noonu ñu avancé après y a eu le trap xam nga légui ñu wax waxu drill moy musique dafa am tout le temps mutation quoi bo xolé tamit évolution musicale mondiale bi mënatuñu tënku ci benn style quoi parce que nigériens par exemple ils ont créé leur propre musique d'ici développé mondialement ñëpp léegi dañuy def afro France États-Unis partout Nous, au Sénégal on a le mbalax lolo buñ ko buggee buñ ko bañé loolu moo fi am quoi mais ñun ñep dañ judd fekk fekk fi musique bu traditionnelle quoi maintenant nak musique bi def peut-être c'est dañ ko jëli mais on on va essayer peut-être de faire la symbiose des choses quoi mais jël li am Sénégal musique bi def muy rap jëm ko jëm ko lié def link bi après mu sonné ben affaire bo xamante peut-être dina mëna boko boo yow automatiquement di nga xam ne Sénégal la quoi wala li nekul fenn si aduna quoi c'est ça loolu mooy affaire bi quoi. bon ça va mon hein, vis-à-vis de la SODAV y a y a beaucoup de critiques par rapport ak ñom peut-être sen gestion wala peut-être li ñuy doxé mais man mom artistiquement géré wu ma affaire yoy noonu quoi yaa ma manager mom moy gérer yene dugg ak génn yi. Moi, je, je, me concentre juste sur ce qui est lyrics et, et, et studio. Mais bon, amenant ce point de vue, quoi, parce que les artistes doivent, être, doivent nourrir de leur, de leur, de leur, de leur, de leur sueur, quoi. La musique que def déjà, day day daw fépp quoi nit yi dañuy gis seen son gars nous booy ñuy góorgóorlu ñu def ay album et tout donc doit peut-être am na benn liggéey boo xamante ne ñoom war nañ ko mën a def ba artistes yi au moins di di mën a gis seen si li ñuy def quoi bon l'album est déjà international parce que une plateforme internationale c'est faible nek quoi fépp dëkk boo munti nek boo duggee plateforme tu tapes Cool Diss da ngay album quoi. bon je dirais je dirais non parce que comme nous nous quoi comme on essaie de on aspire à ce que rap girls gagne ce niveau international malgré que c'est un peu difficile parce que voilà quoi fi ba détails par rapport ak rap parce que aussi tamit musique sénégalaise de manière générale bon par exemple dernièrement internationalement artistes lañ monde bi di citer comment dirais-je El Diouf citer le reggae man il a eu disque d'or récemment sénégalais là, man voilà quoi affaire ngi temps, mais peut-être ni carrément demain quoi bon recherches aussi tamit comme nigériens parce que nous, par exemple si par exemple le gouvernement nigérien derrière les artistes quoi financer de taille artistes États-Unis uniquement pour propulser cette musique quoi peut-être Sénégal amuñu appui appuyé amuñu organisation avons parce que ba léegi a amul industrie musicale xam nga peut-être une affaire ay affaires mais suñu jéemee dajale affaires fondamentale fondamentales peut-être affaire bi avancer toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation